bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte abonné bismillahi rahmani rahim walillahi al asmaul husna fadduhu biha asmaullahi al ko tàmbalee allahu ba saburu dëgg la ñuy wax ni sax ku ko mokkal juróom-ñeent fukki tur yàlla yi ak juróom-ñeent ku ko mokkal am kër ca àjjana loolu lañuy wax waaye man jàpp naa ni benn turu yàlla bu ci nekk rek aw yoon la wu la mën a yóbbu àjjana ci la ma jàpp huwa lazi laa ilaha illa huwa arrahmanu rahimu malikul quddus assalaamu muminul muaminul azizul jabar almutakabir alxaaliqul baariul musawir ba ca sabur ba mu jeex waaye bu ñu gisee ku tedd ki itam maanaam di ci def ay xasaay daf koy ràbb di ko wëlbati am na ci bopp daf naan allahu rahmanu salaamu muminu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay xasaayit yu bokkul la ci def yoo xam ne chronogramme bi ni mu demee nii naturellement ci ni ñu ko xamee nga xam ne dinañ huwa allahu lazi la ilaha illa huwa rahmanu rahimul malikul qudus asalaamul muminul muaminul azizul jabbar al mutakabirul xaalul barul musabirul xafarul xar moom mu itam daf koy jël di ko ràbbee neneen di ko salfaañe mel ni ku koy salfaañe daal nga xam ne ni mu tëddee fii du ko tërale noonu ndax daf koy def ay ay kii daf koy def ay daf koy def ay woy moo tax mu naan allahu rahmanu salaam moom na azizu qudus wali muhammadu maliku maliku sabru muntaqim abdul muqaddimu ma aqru hakam hafizu mubdi u raqibu nuuru bara majud majidu muqtadir rahimu basituru ufu dahiru batinu xawiyu ba mu jeex waaw dem na ba def ci xasida boo xamante ne bii al muati bi nga xamante ne bi dafa nëbbu daf ko caa def muy centième bi muy centième noo bi ndax boo demee ci bi tàmbalee huwa lahu lazi laa ilaha illa huwa rahmaanu rahimul malikul qudus boo fa demee boo juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nga cee fekk doo ci fekk al mu'ti waaye am na xasida bu mu def boo xam ne al mu'ti centième bi da ko caa def kon loolu yëpp daf nuy wan ne rek li mu ni yan xaadu li fathul ghuyubi min alim taxlimuhu li xaada afdala ulum daf nuy wan ne rek kon léegi moom waaw lépp moom la ko yàlla jox ak li mu ne allamtani al xayba xataa surtout muntabihan loolu daf ni gën a wan ni ñetti turi yàlla yi nga xamante ni ci biir turi yàlla yi lu mel al al muhayminu ak lu mel al mutakabiru wala al muqtadiru ñetti yooyu bu ñu doon ay jëmm day mel ni ak baay ak doom al muhayminu di doom al mutakabir di yaay al muqtadiru di bay bu ñu doon ay jëm deug la suñu borom turam wu nekk ak secret ya mu koy saytuloo ak secret ya lambo làmbo bu ñu xolé ñetti tur yoyu ñetti tur yoyu hikmatan manam juroom ñaari asman yi ak juroom ñaari suuf yi ak juroom ñaari bisi manam seeni sirru manam seeni leer ñoy saytu juroom ñaari asman yi ak juroom ñaari suuf yi ak juroom ñaari bisi lolu motax ñetti tur yoyu bu allahu jalle asamadu jall ñaar yoy bu ñu jalle ñetti tur yoy li ñi ëpp doole ci tur yalla yi muy muqtadir ak mutakabbir ak almuhayminu mo taxon nak al muqtadir bi bu ñu seetloo ca fan yele ca gannaaw rek war tollu toll ca ay bis mba mba ñaari ay bis ay bis wa mba fukki fan ñaar dal ci tollu lim ba ma ci doon deflu bi ma ne len nañ ko man nañ ko yamale fofu bañ ko sété fekkon ñu jot ci def 33 millions de fois ci al muqtadir lolu bu nango xajul ci dara motax nak euh, tuya ba je ñu yene ko yamal wuñ ko rek senegal ak ci julli bi rek wuñ ko rek ci khalifa bi ak njiitu rew mi rek dedet dañu xamni ben benn turu yàlla bu ci nek rek man na lu ne ben ben yon kep bokk ko ben yon kep te mu sel man na lu ne asimaag nak nombre bu toll ba tax na lii yëpp li tax ñu koy wax rek mooy surtout ndaw ñi gën leen a xiirtal rek ci turu yàlla waxuñu leen de ñuy toog fi barab bi ko wér dégg nga ndax gone du wér waaw gone moom wax dëgg yàlla bu laa ilaha illallah jàlle salaatu ala nabi jàlle jërëjëfe Sëriñ Tuubaa doy na ci làmmiñam gone moom turu yàlla yii may wax nii wax dëgg yàlla waaw gone waru koy saytu te mag ñi koy saytu sax mag mooy mag ñi dëddu mag ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna am ni jàmm yàlla rek ay seen métier ak tur yàlla te day yomal juma at yi moo tax eh, ñu leen doon baaxee loolu wane ni rek eh, benn tur yàlla bu nekk rek jàpp nañ ne aw yoon la wala mën a mën a yóbbu àjjana waaye ñett yii nag moom dafay yukki maane moom hmm. rawante nag al muqtadiru damay bañ gone gu ko dégg nag dafa ne danga koy war di werd te du yëfi gone salaamun minallahi aleykum wa rahmatuhu bul à abonné bul fàtte à bul